mooy si defante nag boo toogee doo xëdd doo reer fa ngay bàyyi bëri. boo defante xëdd reer yow maa mën a tëlee xëdd reer. barke Serigne Touba mënoo ci man dara. Ah, ah, waaw waaw waaw day nax rek. tey laa si daan benn combat ma kii. mais gars yi dañuy ne kuy sama loxo dal barke Serigne Touba <laughs> barke. waaw waaw dañ leen lay dee. déggu ma nga ne ren. bu sey tey yaru nga rek. <laughs> nga ne nga ne buuse boo ko dooree ba leer la jëm. damay làmb bu la rayee da ngay xam ne daf laa raw xam nga léegi lu war a defi ah menn Alboury moo fi mbër ñu ngi koy ñaan yàlla may ko tawfiq kan mooy man Alboury ma waaye kon booy booy wax Alboury nga wax Alboury mais bul ma ci génne fii day mbër yow nee na yow doo mbër yow mais man mbër laa nee na yow doo mbër nee na yow doo mbër yow nee na yow doo mbër xaan ma ay nii nee na yow doo mbër nga ma ji seetaan naa benn lamba barki démb ñu dóor ko dóor métti moom kii faram kon lañ doon seetaan maanaam moom ah ay ni xool ko mënu dara loo xam ne 18 combat 18 combat bi def 17 defe balaa maa dee mu naan day waaraate naan ay jaamu ji leen yàlla yow ñoo def ko jaamu yàlla yàlla doo def kenn dërëm laa ilaaha illallah parce que mënoo ñun dërëm ñun ku toog ñun xam ñu doo dara boo weddee léegi ma teg deux cent mille nga teg deux cent mille léegi ñu mbapat da ah, ngaa mën ci man amay ni mënoo ci man tous ba tey nga di jël sa làmb ji yomb jee yow magum jëmb sa làmb ji yomb jee ci dooru sax di Jacob yow lamb négociation. lamb dafa la raw lamb. yow mii la lamb raw yow mi toog foofu sa caay ñu la jóg. mayal ñu mu jàll. ngay nag yow laa mën a daan yow. yow laa mën a daan. yaa ko oto dina la fa yow laa mën a daan yow doo dara. yow laa mën a daan. yow laa mën a daan yow. tapet moto doo bëri aram. bu ne la mën a aram. tapet moto doo bëri aram. doo dara mënoo ci man tous tous. ama mën a daaneel amay nii waaw signal kaay signal laa waaw kaay signal laa jam-jami kaay jam-jami laa la kaay jam-jami laa la wax rek nga mën man ñi ngay wax di leen mën mënoo ma man ci air bi ngay taxaw di wax waaye mënoo wax ci man de day wax rek man du ma ragal du ma xoof barki Seydina Muhammad du ma tiit du ma xoof du ma def damaa dof man du ma ñëwee waxal di jël xëppatal du ma ñëwee xëppatal yow. waaw man de xëpp doo dara man sëñ bee ma dëpp de. waay yéen ma dëgg ngay lan sëñ bee ma dëpp. ban sëñ. da nga am benn sëriñ. ñoo da sëñ boo yaakaar yaakaar lañ. waaye am da am noo koy combat mais mënoo fi wax dara ba. Eh, ban làmb nga am fi daal. fii ngay ñaan ñaanal waaye may ma jàmm nga naan kii ngay ñaanal ñàkk gëm sa bopp ngay def yow yaa gëmul sa bopp ah bu leen dee bett bu la dee bett li nga xam bett man boo demee benn at boo xam da ngay bàyyi lamb comme ni ma def wuti leneen lamb mënoo ci am dara yow man may xale bu ndaw man alburé ba mag di man alburé ba mag barki sëriñ ba ma alburé ba mag yow mi en père yow man nan moo ma def nii mais père man man lan moo dund bu neex rek la may sàlla mais père man dund bu neex ma ma def nii barki alburé yow yaa ma jël yow eh man may xale bu ndaw man ak kii ñoo maase yow mi wér nga yow. yàlla mooy jëf nit ki la jël jëmm nit def ko kii yaa ngi nii dund ko bay bëgg a dee ba sa kilifa nekk jëm kilifa. màgget kii mi ngi mënu fexe ba màgget. mënu fexe dama ne la. yow yaa nekkul kilifa yow yaa nekkul dara yow da ngaa def yow dooru sax yow di jël ay sa fa balde waaye man mënoo wër wër ma de. yow bàyyi de yow bu dee ñëwee ngay am problème mais ba ma. kii kii maanaam sariya la fi nekk. ah bu kii bi sariya amul ci lan nga ne yow. boo fi nekkalee sariya di nekk fa diine. doo dara mer ñu ne ma maa tey yow loo doon def yow. ah as yow loo doon def. as maa ngi mos dara yow. ngi ah premier parti bi neex na. nga ne. Batika mi ngi ci leneen. jaamu yàlla taxawal ci sariya. ñoo ko dàq jaamu yàlla foofu. bu def def loolu ba Batika jël diine ji maanaam. sang néew rek la mën. ba Batika jël diine ji dégg. liggéey bi muy liggéey gën a bon teel ba jëfandikoo moom. di yàqamti nit ñi dee. da ngay yàqamti nit ñi dee. yéen yéen a tax coupe bi ñëwul sa dossier yëpp jox nañu ko yéen a tax coupe bi ñëwul. <laughs> waaw yéen a tax coupe bi ñëwul yàlla na ma yàlla musal ci as bu na laaw ma neex ma wax yéen a tax. yéen a tax ko bi ñëwul. yow moo tax ko bi ñëwul. yow yaa ko dëpp. am na yow Sénégal kenn génn Sénégal du ñu am dara. yow xamoo football xamaanoo football. man damay seetaan championnat man Leicester mooy sama équipe. damay leen ma 600 jours barke alxuraanu kër ba jamonoy Maradona seen nëf bi kenn incha ba ñëwee dama lay limal lépp. waaw waaw yow tekki ñi tekki wuñ dara football. maanaam mais buur li yàlla am sa biir rek. non gis nga bu leen xam ne raw. man du ma sa génération man génération am la déggee doo ñoom Cheikh kan yàlla ko yàlla defal ko àjjana jeex na ba ma la xamee ba léegi benn combat laa gis nga bëri ko moom xale boobu dëkk tey tey ne ci toujours Ama Baldé mais kii ñeme na la rek. non kii am naa lu mu mit tey. nañu ñu wàcc. déedéet am naa lu mu mit. am naa lu mu mit Bousse. kii lammi na ma rëy màgget. Fatick dañ ko monté ma fekk tey. ku ko monté ay dossier la da koo mën a monté kii maa ko ëpp dossier nekkee parcelle yëpp xam naa appartement boobu la bi mu yor yëpp xam naa nan jaay jaamu yàlla ja nan day jàngal xale jigéen ñi alxuraan jàngaloo kenn dara. nga ne lu mu yor. Eh, man maa yow man mi. Boucher ne da nga am appartement meublé. kii nekk ci jàkka ji nga nekkul ci jàkka. comportement ñun. ah wax dëgg yàlla kii de murid la. dafa am yu wax muy ñëw dafa damay nit nit boo demee benn âge boo xam ne da ngay tuub. waaw dama ne boo ñëwee ba nekk âge da ngay tuub déggoo la da ngay tuub nekk yàlla xam ne dimbali xale nga da nga ci duggoon. jóom mais xale boo xam ne bëre bëre boo xam ne yow amul la benn avantage am ne da ngay bàyyi da ngay bàyyi âge âge day bàyyi. boo ñëwul nag bu borom bi ñëwee retraité nga xam ne yàlla bu retraité doo doo laajati paas yàlla bu ñëwee retraité la daaj paase. ràmmi na woon rek. bay bu ndaw ci xasida yi sëñ Tuubaa yi mënu ko. boo ko tariloo woon léegi midaadi du ko yëkkati. daajal midaadi. jërëjëf jërëjëf. du ko daaj ràmmi na woon rek. jërëjëf kii du jëwriñ. kii du daa maa ko gën a nekk jëwriñ. ah ñun doyloon nañ ko ñun. damay nekk jaay nihmatu rabbil alamin. nga ne nga ne ñoo ko yëkkati. tey foo fël ba fël ba ko def. doyloon nañ ko ñun boo bëggee léegi ñu daaj ci xasida yi sëñ Tuubaa yi nga xam. doo dara c'est premier parti bi la li ma naq